daleen ak jàmm seen seen bii di Thiowli Buzz kii di président Macky Sall waxoon na ko ne bis bu waxee ko ne du bokk ci élection présidentielle 2024 yi ñu jëm dina am ñi nga xam ne ne dañoo bokk ci parteem te di liggéey ci gouvernement bi ñooñee dootuñ nangootu liggéey ndax dañuy jéem a fexe nu ñuy créer seen propre parti ngir ñoom seen wàllu bopp ñu daal di bokk ci élection présidentielle 2024 yi ñuy jëm li ni mel nag ku ci amal ab ñàngat nga gis ko ne moo ngi commencé wu di jëmm ndax démb kiir président Macky Sall gulet mooy dugal ab projet de loi biir assemblée nationale ay député yi nga xam ne dañoo bokk ci moom daal di daal di koy wax que ne li nga dugal foofee duñ ko voté tey duñ ko voté suba li ni démb la amoon biir assemblée nationale ndax ba kii di président Macky Sall dugalee article 27 ngir ñu daal di koy modifier biir assemblée nationale am na député yu bokkoon ci moom bañ a voté li ni mel. ginnaaw loolee tamit kii di Abdoul Aziz Diop jug na daal di ŋàññi kii di président Macky Sall ci boppam ak kii di Farba Ngom ndax kooke xamal na sénégalais yi que ne kii di président Macky Sall daa may nopp loolu kii di Farba Ngom mi nga xam ne ne jàngul a jàngul be jàngul alxuraan te kooke moo koy dugal ci ay tooxi duna yu bëri ci réew mi di Sénégal ndax ne kii di Farba Ngom moom moo xelaloon kii di président Macky Sall ba kii di président Macky Sall bëggoon a taal réew mi di Sénégal ñaari yoon bu si jiitu moom mooy événement yi fi amoon ci mars 2021 ak événement yu ñu mujjee génn ci juin 2023 ne tamit kii di président Macky ñeme qui ki di président Ousmane Sonko ginaaw ki di Abdoul Aziz Diop qui di Elisabeth Assom Diatta kookee tamit daal di nay génn ci biir parti bi di APR daal di dem créer propre parti am ne day bok ci élection présidentielle 2024 ni ñuy jëm donc kaddu ki di président Macky Sall yooyu jubaloon bis bu ne du bokk ci élection présidentielle 2024 ni ñuy jëm dina am ñu jugee ci propre parti bi di APR daal di créer son propre parti ngir daal di bokk ci joŋante élection présidentielle 2024 yi ñu jëm li ni mel moo ngi tàmbale di am ndànk-ndànk.